daleen ak jàmm jamono ji orchestre bi di Jolof Band ñu ngi ci guddi gu bët seetagul mbirum trafic de faux visa moo fa indi coow lu rëy rëy loolu moo waral ba gendarmerie teg loxo manageru Viviane bi di wuyoo ci turu Djidiack Diouf moom ñu ngi koy toppee association de malfaiteurs faux et usage de faux de des documents lépp nag mu ngi doore ci jàpp gun jàpp benn waay mu yoroon ay faux document administratifs moom waa ji nag ginnaaw bi ko gendarme loxo ba enquête ko ci la daal di yoole ñi muy liggéeyandool ci noonu nag ci la daal di joxe seen bërëbu liggéeyukaay mu nekk foofee ca Liberté 6 nga xamante ni foofu la ñuy confectionné faux document administratif yi ca noonu nag la gendarme yi daal di def ab descente ca bërëbu liggéeyukaay boobu mu nekk ab multi service waaye nag li ci gën a doy ba ñu demee kañ fa fekk moo di Djidiack juuf di manageru Viviane ak yeneen ñeenti nit ca noonu la gendarme yi daal di def ab perquisition ginnaaw boobu la perquisitions ci la way takk der yi daal di gis benn sac boo xamante ni ay passeport la defoon ba mu fees dell yamul foofu ci boobu la perquisition ba tey ci lañ gis kase orchestre bii di Jolof Band te waykat bii di Viviane daal di koy jiite li lépp di wane ni ab réseau de trafiquants de faux visa la buy mbubboo concert Viviane yi nga xamante ni da koy amal ca birim réew ngir mën ci jaaree di defaral seeni client ay visa ñu mel ni ay artistes wala ay membre boobule mi jiite boobule orchestre ngir seetal deram dafa constituer partie civile ngir ñu bañ a yaakaar ni rek moom complice la ci boobule affaire moom Viviane nag ba léegi mu ngi xamle ni victime la te mbir mi raalewul benn yoon ak liggéeyam wala sax orchestre bi di Jolof Band victime la nag wala complice lu ci mën di doon Viviane moom yoon dina déglu ci fan yi ñu jëm.